mom Serigne Moustapha moom Cheikh Mamadou Awa Balla fas yéene waxtaane ak moom ci jëmm ju sell jooju di borom Daarul Muxti waxtaan wi nag koy jooyal jëme mooy diggante borom Daarul Muxti ak bokki boppam yi diggante borom Daarul Muxti ak bokki taalibe yi diggante borom Daarul Muxti ak ñimu mu bokkaloon bi ak digënté borom darul Muxti ak ñimu mu bokkalul diine te ñooñu mooy nasaraan bi nga xamante ni bii ñoo fi jële woon ko tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba kon laaj bu njëkk bi sëriñ bi mooy diggante borom daarul muuti ak bokki boppam bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin jërëjëf sëriñ Bay Gey Sylla kon ñu ngi lay nuyu ak eh, personnel bi nga xam ne ñoom nga àndal leen sant bu baax ci seen taxawaay ci <coughs> liggéeyal sëriñ Touba loolu nga laaj nag ci diggante boroom daaw ak mbokki boppam mbokk day lu am solo ci lislaam ndax suñu borom bi nga xamee ne digal na jaam ñi ne nañ ko jaamu te bañ koo bokkaale dara lam ca teg mooy nañu fonk ay wajur ak ñi nga xam ne ñoo la jege ci mbokk wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bizil qurba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamle ne ak mbokk ma nga ñu wékk ci kaw aras moom mbokk bañ ko wékkee ci aras ma ngay wax naan yàlla képp koo xam ne jokk na ma na nga ko jokk képp koo xam ne dog nga ma na ko dog kon am googu mu am solo moo tax borom daaru fonkoon ay mbokkam lool jàppoon leen lool ba kenn ku nekk mu am ak yow relation boo xam ne jàpp nga ne yow rek la ko amal amu ko keneen sëriñ bi itam yaree ko ci noonu ndax xasida gu googu nga xam ne moom la moom la moom la ko joxoon te e, daanaka liy makaarimul axlaaq mu dëxiñ ko ci biir suñ ca demee ma ngi koy wax naan ko zullal li ixwaanika li nasiha tanju minal baxdaai wal fadiha na nanga woyof ci say mbokk boo ko defee li ñuy wax ak mbañeel danga ci mucc ñoom ñëpp nañ la bëgg loolee moom la jëflantee ak ñoom kenn ku nekk mu jëmbat ci yow teraanga joo xam ne doo ko fàtte mukk la jiitu ca loola mooy la ëpp solo ci nit te di ko jariñ àdduna ak àllaaxira mu njëkk la ko jox te mooy xam-xam ñu ëpp ci ñoom jaar ci ñoom mu jàngal leen Euh, mandal leen ci xam-xamam bañu ham xam la ñu war a xam lépp bu ko defee kenn ku ne ci ñoom bu noppee ci loolu mu jël doomam jox la ko euh, ngir gën koo euh, dëgërale relation bi am diggante moom ak ak ak ak yow mi mi jàngal toqi la ci loolu di ngay mbokkum boppam loolu sëriñ sëñ Moussa Ka yaakaar naa loolu yaa ma ko gën a xam cité na lu bari ci téeréem bu marché bi mu defal borom daaw Cheikh Moustapha Mbacke Madib Khalifa Cerno ko jàngal kooka nawlem defa jibal ko aminatul Lo saay nopp noppi ñi koy déglu demal na kopp ba marsi ba jeex euh, serigne fallu ku ne tuddu nako xam lene mo bam ko jàngale ba nopi jël na doomam jox ko ko serigne ma roq busu euh ila akhiri, kon lolu euh, di lo xamne ci diggam mak ay mbokki bopam non la doxé ak ñom lolé itam tax ñom ñëpp ñi nga xam way jur la ci ñoom ñu jàppe ko ni seen baayu bopp ñi nga xam ne mag la ci ñoom it ñu jàppe ko seen mag yi bopp seen sëriñu bopp kenn ku ne ci ñoom li nga xam ne mooy firndeel mbokk ci ak kóllëre euh, ak xarit ndox na diggam ak ñoom kenn ku ne tudde nga ko doom muy firndeel euh, wëllëre woowu nga xam ne amlante nga ko ak ñoom kon loolu euh, di loo xam ne moom boroom daaru ci diggam ak ay mbokkam mooy li nga xam ne euh, moo ci doxoon ci ci ci wàllu euh, relation yu rafet bi <coughs> euh, ko bi laaju ñaareel bi defe naa da wax ne diggam ak ay mbokki ta ñi nga xam ne dafa bokk ak ñoom sëriñ leen ci man laaj nañu sëriñ Xalil Mbakke diggante boroom daarul muuti ak bokki taalibe yi lii la ci tontu. waa diggante ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ bi ñoom ñoom itam dafa leen a defoon ni boppam ndax suñu delloo ci alxuraan suñu borom mi ngi wax yonent bi sallallahu ci ñi nga xam ne dañoo ñëw jox ko seen bopp ànd ak ñoom ci lislaam di ay saxaaba daf daf suñu boroom wax na yonent bi ne ko wasbir nafsaka maa alladina yad'una rabbahum bil ghadaati wal ashi yuridoona wajhahu ñi nga xam ne dañoo ñëw ànd ak yow di jaamu seen boroom ci sa gorom ñooñu na nga not sa bakkan ci ñoom ci ànd ak ñoom guddeeg bëccëg bul teqali ko ñoom mukk bu leen génn kër gi bu leen xatal bu leen bund xatal loolu mooy ñi nga bokkal positif Cheikh Ibrahima Fati ñooñu nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ bi nekk ak ñoom ci keppaaru sëriñ bi euh, ni ma ko waxee ci mbokk yi léegi nii laa koy waxee ci ñoom kenn ku nekk ci ñoom ñi ci ëpp moo leen jàngal moo leen toq ci xam-xamam euh, bi nga xamee ni sëriñ bi dem na ci géej gi ñoom ñëpp mm, ci loxoom la leen teg nga xam ne ñi ci ëpp seenu àgg ci yàlla ci kanamam mm, ci loxoom la jaare seen xam-xamam itam euh, ci loxoom la jaare diir bi sëriñ bi nekk ci géej gi loolu kon di lo xamne ne eh, fala ak relation bu rafet tambalé sëriñ Moussa Ka eh, li ëpp ci melni bu ñuy wax ci moom la ñuy euh ndax li ëpp ci loolu ko na ñi nga xamne ne ñoom ñoo jàng ci tudu tuddu ci sëriñ tudu Bintalo tuddu ci sëriñ Mudun Penda tuddu ci sëriñ Mukhtar Diop ak sëriñ ak sëñ Modou Khary ak ñeneen ñu bari ñoo xam ne ni ma ko waxee ci mbokk yi ñu la demee ci ñoom kenn ku nekk bi mu la jàngalee ba noppi dafa jël doomam jox la ko ngir euh, feddalee ko euh, loolu nga xam ne mooy relation bi am sa digg ak moom ak won la ne euh, li fi nekk mooy xam-xam ak jëfe loola mooy taxawal lislaam kon ca la ñuy rawante ni ko sëriñ bi waxee ci nax joxe daal xaaj kon koo ci xam ne dem nga ba àgg ci niveau bu toll noonu moom def na la nawleem def na la euh, boole na la ci boppam loolu moo taxam kon kum ci jàngal ba nga xam li nga war a xam mu jël doomam jox la ko loolu suñu delloo ci euh, merci Serigne Moussa bi ñooñu ma tudd ñëpp kenn ku nekk bi mu noppee jël na doomam euh, jébbal la ko ngir firndeel lu mel noonu ñoom ñëpp itam mu ñu jàppe ko ab sëriñ fonk ko wormaal ko def ko nii nga xam ne ni ngay def sa sëriñ bi nga su ko jébbalu kenn ku ne ci ñoom tudde nga ko doom baa nga jël sa doom jébbal ko ko mu nekk ci këram yaroo ci euh, keppaaram mën nañ ca cité rek euh, sëriñ Issa Diène ci ñi gënoon a jaxasoog moom la bokk ak sëriñ Modou jaw Paxa ak sëriñ Massamba Diop Sam nga xam ne wax nañ ne sax moom fu borom daaru masaana sañ ci dafay sanc ca wet ga ngir euh, ne euh, bëggul ñuy sore euh, kon loolu lépp li muy tegtale mooy makaarimal axlaax yi nga xam ne moom borom daaru jikkoo woon na ko ba mbokki boppam yépp mu xajoo leen ñi nga xam ne itam ñoom la bokkalan sëriñ bi ñu nekk ak moom ci keppaaruk sëriñ bi ñoom ñëpp mu xajoo leen ba mujj ñom ñëpp def ko ay mbokki bop def ko seen sëriñu bop ci lepp lo xamne ne eh, jëflante bu rafet la kon ci walu gogu lolu moy li nga xamne li mom lañ ci mëna tënk ci eh, digg nak eh, ñi nga xamne ne la bokkal kan ci kat ci képaru serigne <coughs> kon def na ni laaj bobu leer na serigne bi ñëw na ak nun mm, ci bokki borom daru muti dégg nga lu ma ko waxee ci laaj bu njëkk bi ñi ku mu ci xamal ba noppi dencal na la doomam wala ab jarbaatam wala doomu sëriñ bi tàmbale ko ci Cheikh Moustapha al moom la jox soxna Aminte Lo mu am ca soxna Mariam mu mi di ab taawam ak sëriñ Mbacke Madina dégg nga sëñ Moussa nee na Cheikh Moustapha al Mbacke ma dem xalifa ceer noo ko jàngal kooka nawleem dee fa dencal ko Amina Lo saay nopp noppi ñu koy déglu tam ak mu fopp El Hadji Falliloo nga woon fa Mbàkke ceer noo ko mottilil bi xeer xayri sàkki dencal ko doom ji tudd soxna Aysa moo euh, saatu jamel moo di jee jënaafi sa euh, Sëriñ Masamba moo ko jàngal fa Mbàkke moo rakkam yi loolu yombul Cheikh Coro ak rakam Sëriñ Balla Coro xamal na leen aslëf ñu dem doog a beru dem ba ci doom doomi baay mi nga xamante ni bii Sëriñ Omar Fall Mbàkke moo ko jàngal dencal ko jarbaat ba euh, kafeem lay tàngal boo ñëwee ci euh, ñi mu bokkal sëriñ itam noonu mu ko waxee euh, sëriñ Maxtaar Bintaloo moom la jox soxna bu sa doomam sëriñ Modou Matar Diop mu jox ko meneen soxna bu sa bi bokk ak ak sëriñ Cheikh Fati Fall kon noonu la demee woon ak Lampu Njàmbur sëriñ Momar Sey sëriñ Bam Nji Njaay ñoom ñooñu ñëpp Euh, borom daaru muuti moo leen xamal kon ni mu xamalee bokk yi noonu itam ni la xamale ñi nga xamante ne bii ñoom la bokkaloon sëriñ bi kon sëriñ bi laaj nañu ko itam euh, borom daaru muuti digganteem ak euh, ñi mu bokkaloon lislaam bi sëriñ Xalil lii la ci tontu. waaw jërëjëf ñi nga xam ne ñoom dafa bokk ñoom lislaam ñi nga xam ne bokkuñu tarixa yi ñu askanoo ñooñu mooy ñi ñuy wax mbokki lislaam yi ñooñu itam lislaam dafa am lu ci sant jullit bu nekk te mooy yonent bi daf ne woon al muslimu axul muslimi laa yaxuunuhu wala yakzibuhu wala yaxziluhu kullu muslimi ala al muslimi xaraam araduhu wa maaluhu wa damuhu ataqwa hahuna bi xasabi imri'in min alcharri an yaxqira axaahu al muslim mu ne jullit julit mooy mbokkam ni mu ko waxee ci alquran innamal muminuna ixwa kon wuru koo wor wuru koo fenal wuru koo seetaan ci lum mu nekk daan ne bu nekk maanaa moromum julitam ab deram araam na ci mu ci wax lu dul noona der araam na mu di ko tuur ci lu ci lu tegewul fenn alalam araam na mu di ko yàq ci lu tegewul fenn daane ragal yàlla nag mi ngi fii daal di joxeñ ab dënnam daan ne eh, eh, doy na nit ki aw toor aku ay muy xeeb mbokkum jullitam muntalax boobu ci la boroom daaru eh, doon doxee ak ñi ñi nga xam ne ñoom la bokkal lislaam bi ndax sëriñ bi moo ko yare noonu nampatale ko noonu bu ñu demee ci masaalik sëriñ bi ñu ngi wax ne fa kullu wirdin yuridil murida li xadratillahi walan yaxida سواء ينتمى الى الجيلاني او ينتمى لاحمد التيجاني او لسواهما من الاقطاب اذ كلهم قطعا على الصواب يون يب تي لنجم لا تي جار فلا لا جمالي فلا لا اغالي مو يون شيخ احمد تيجاني لا ولا موخم خم يون شيخ عبد القادر جيلاني لا ولا كنن كل يوم تي يينن بروم طرق koo ci jaar bo bo bo fa muy àggeeg yow mooy yàlla kon euh, yoon wi euh, tàqalikoo na waaye jubluwaay bi benn la mo moo taxoon euh, cheikh ibra fati jël ñëpp ñi nga xam ne ñoom la bokkulul lislaam bi ñoom la bokkulul yoonu yoon wi te ñi ay jullit nekk ak moom ci réew mi def leen ni ay mbokki boppam sëriñ bi daf ko daan wax ci leetar yi mu ko daan bind mbooleem ñaani aqtaab bi ak ñu baax ñi yi nga xam ne yaa ngi koy dajeek moom ci téere yi loo ci gis diggal naa la diggal naa leen ngeen di ko jëfandikoo ndax moo li ma leen di jox rek ñoo yem ngi ci maj moo yi nga xam ne rasaayil yi mu ko daan bind kon su fekkee noonee nàmpatale ne ko yare ko ko noonee rek lay mën a doxe ak ñoo ñi nga xam ne ñoom la bokkal lislaam bi te nekk ci réew mi ba tax na kenn ku ne ci ñoom amoon nga ak moom relation yoo xam ne relation yu étroite la noonu ko sëriñ bi junje ci ci ci ci ci ci ci ci biir itam noonu mu ko waxee ci masaalik ci ci bayit yooyu noonu la ko doon dunde moom sëriñ bi noonu la ko doon dunde loo itam ndax jël na ñeenti wérdu yëpp muy wérdu xaadar wérdu tijaan wérdu saasali jox ko ko moom borom daaru ne ko dee ko séddale taalibe yi ko ci xam ne Euh, atte na ci wér nag rek ko jox ba fi mu ne boo demee euh, Daarul Moxti am na ci njaboot gi ñoo xam ne werdu saasali ñu ngi koy jëfandikoo loolu li tegtale kon yaatug yaatug gis ak yaatug dënnu boo xam ne amal na ko ci wàllu googu ba tax na kon noonu la dundeek ñoom di rub li fi nekk lépp la leen fi euh, bàyyi ko diggante mag sëñ Adi Touré ñu nekkaloon ko ne xam na ko ak sëñ Amari Ndaak moom mu nekkoon cene ba ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon loolu mm, seera la yoo xam ne manes na ko wax ci diggam ñu mel kon day mel ni loolu daal mooy ni mu doon dundeeg diggam ak ñim bokkalul diine ñim bokkal ñim bokkal diine ji maa ngi jóg sëriñ euh, Adi Touré moom noonu la doxe woon noonu la jaxasoo woon ak moom moom itam bi mu fi jógee euh, borom daaru sëñ Modou Balla mi mu fi bàyyi noonu la amoon ak moom relation ndax moom it ci moom njabootam moom borom daaru ci noonu la leen yare ci ak yaatu dënn ak ubbiku ak nangu ñeneen <laughs> ñi nga xam ne ñom euh tarikha gis nga sëñ adi touré ñi ngi tuddé sëñ mora sëñ soxna awa balla tuddé nako dom tuddé tudde mora awa balla dom, lolu kon euh, di firndel dund gi nga xamne euh, borom daru doon na ko dund lolu ko sëñ bi yaré won té moy japp li nga xamne mom nga nek xamne moy li wër ñeneen ñi ci dess itam lañu nek nga nong ko xam ne lu wér la waaye dëgër ci li nga nekk nag xam ne <clears throat> mooy li la yàlla booleel nangu euh, ñeneen ña ci des lañ nekk ndax yërmande yàlla ak ay yoonam dafa yaatu ba àgg nañ ci wax ne yoon yi jëm ci yàlla mu ngi baree ni noo yi baree kon loolu euh, ci la sukkandiku woon ba ñëpp mu xajoo leen ñëpp mu def leen ay mbokk mbokk yoo xam ne mbokki lislaam lañ ba bi lim fi nekk ba jóge fi gisuñu yenn eh, histoire walla ay juyoo wala ay joxalante kàddu yu ñaaw yu dox ci diggam ak moom wala diggam ak ay njabootam yi nga xam ne ñoom la fi bàyyi ci yeneen kër wala ci yeneen ñu mm, mel noonu loole nag kon mooy firndeel ne loolu ko noonu ko sëñ bi yare woon ci loolu eh, yarin woowu ak mm, jubluwaay boobu jaar na ca diirum lim fi nekk ba ñu fi jógee njabootam yi mu fi bàyyi itam yare na leen ci noonu ba ñoom ñëpp eh, noonee la ñuy doxee ci mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ bokkalul ay yoon moo ci di cité suñu wala ball waaye ñeneen bari na ci ñeneen njaboot ñi nga xam ne am nañ ay relation ak ñeneen yeneen kër yi ci des noonu mënees na ci dugg ñu bare bari ndax xëy na comme waxtu bi dafa gàtt mënees na tënk loolu ci wàllu boobu <coughs> euh, kon sëriñ bi leeralal nañu diggante borom daaru muuti ak ñi mu bokkaloon lislaam bi waaye laaj nañ ko itam relation yi doxoon diggante borom daaru muuti ak ñi mu bokkalul diine te ñooñu ñooy nasaraan bi lii la ci sëriñ bi tontu. waaw loolu itam moom lépp lu muy nu muy doxe sëriñ bee ko yare noona sëriñ bi itam népp nu mu ko yare daf ko tëbbaloo ci waxi yonent bi ak waxi yàlla ci alxuraan moom la leen daan namputale لا تجد خوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم أو أمناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم يالا دفع واخني دو غيس موك كو خامني اك گمم دغرنا موي نيك دي جاب مبوك ولا خريت كو خامني گمول يالا گمول يونت بي نونو نا يالا نونو نا يونت بي ا سيرن توبا واخ تي الجوهر نفيس وأحبب المؤمن للإيمان ولتبغض الكافر للكفران walaw ata ilayka bil jinaaya zaka wa za bil mali dil kifaaya jullit bi bëgg ko ngir doon gëm doon ab jullit ngëm ngëm am yéefar bi bañ ko ngir doon gëm doon ab yéefar donte indil na la alal ju bari nang ko jàpp ba tey bañ ba tey ca yéefar gëm doon kii jullit bi it bu la bu la bu la tooñee lu sa xol tàng tàng teewul na nga bàyyi xel ne Euh, sa mbokkum jullit la rek ak mbañal ma a dox sa diggante ak moom kon noonu la siñ bi daan yare njaboot gi noonu la daan dundeek ñi ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax yéefar yi lu xoota dalantu fii ko mubghidan lakum ma lam tatubu lahu wallahu qad shahida muy wax ak tubaab yi naan leen maa ngi leen di xamal ne maa ngi leen di bañ li fekk tuubu leen jëm ci yàlla te bàyyi yii ngeen di wax ci yàlla te yëllawut ak màggaayam kon nonu la yar cheikh ibrahim momi ba tax mom itam noonee dong lay mëna doxé ak ñi nga xamné ñom lañuy di wax ay euh serigne Moussa Ka suñu delloo ci marsiyaam boobu mi ngi wax na mo bañ tubaab baab ceddo baate yéefar suppul ku daa prononcer ba kuy siifar nonu ni la daan doxé ak ñom dañ daan ñëw ci kër gi jamono bu nek di ko di ganas ak diko set waaye teewut li nga xam ne moom moom la jàpp ci xolam mooy ñoom ñii doonuñu ñoo xam ne ñu ñu ñu ñu am solo lañ dal donte itam mi ngi maslaa ñoom ngir li ko eh, sariha sant loolu ñu ngi dattali eh, ci guerre mondiale bi mm, nga xam ne booba eh, tubaab yi xeex bi metti na lool am ci koo xam ne dégg naa daan ñëw yor ab journal di ko liiral nii di ko nettali ñi ci faatu nga xam ne moom dafa mel ni dafa dafa dafa xam sëñ bi bañ bu mu bañ tubaab ndax bu ñëwee. waaw dañoo telloon ci di leeral euh, noonu nga xam ne ñu la bañoon tubaab nga xam ne am na benn bis koo xam ne ci taalibe bi la bokk bu ñëwee da koy liiral journal yi di ko di ci tubaab yi nga xam ne moom jàngul tubaab sax bu ñëwee journal bi mu yor da koy da koy jutal bu ko defee bu ñëwee ne ko ah tey de nangami tubaab faat na bu ko defee bu ñu attaayee moom la ñu njëkk a xel ngir information yooyu muy joxe euh, dem jëm ci tubaab bi nga xam ne loolu loolu lépp di wundu ni mu ni mu ni mu ni mu bañ woon euh, ñu mel noonu sëñ Basiiru Anta mi may nettali ne am na tubaab bu mos a ñëw ci kër gi fekk ñuy xolli buy fu ma ndaxaar bu ñëw ne nañ ko ci may sëñ bi ne waa ji ne ko man ab yëfur lekk sama sama sama buy waa ji bëgg bëgg euh, waxee waat ko ne ne ko nee ñu wutal la beneen buy bu gën a mooy mu ne déedéet wax ko li ma la wax ne ko ak yëfu lekk sama buy kon li ñuy tekki mooy euh, gëm gi gëmoon yàlla tax na mënta xajoo leneen loo xam ne dafay jiyoo euh, yàlla jaar la wante loolu lépp nag teewul maslaa gi nga xam ne yàlla santaane woon na ko ci diggam ci diggam ñu mel noonu loolu it daanaka bàyyi xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna la nabushu fi wujuhi xawmin eh, wa qulubuna tal'anuhum léeg-léeg aw nit ci yéefar yi jub ma ma di leen muuñ di leen woon kanam gu leer wante fekk sama xol mi ngi leen di rëbb mi ngi leen di móol hmm, loola mooy maslaa maslaa laakin moo laa raatuhum moo xat muy ban noonu itam dafa daan def ak ñoom ku ci ñëw teraanga joor si digg ak moom da koy def ba tax na teewul toujours dañ fa daan ñëw dégg di ko gane si jaxasoo ak moom loolaa tax sax bu amee aajo boo xam ne bu mu bëgg def ci dëkk bi la te mu nekk ci seen i loxo loolee di maslaa boobu mu daan defal ñoom tax na ñoom itam dañuy taxaw ci loola taxaw euh, ga ca war bu ñu xoolee si Moussa Ka loolu muy wax ci bi teen boobu nga xam ne moom la doon gaslu daru nox ki moom si moom borom daru na ca tubaab ya taxawee tubaab ba tàmbali ci ama waru sa Chine tubaab ba ñuy wax buya moo fa wàcc si euh, gas na fa am xat te bënul mu dellu wax ko borom ndar njool ma daldi dellu tuba bu tudd code frac di proa ne fa jalañ ku nekk yor say croa nga xam ne kon diggante bi ñuy gasteen bi gis nga jafe-jafe ñu ci amoon teewul luñ man ci ay effort def nañ ko nekk ci lu man at loola masla gam doon masla ak ñoom ak niite gam leen doon woon moo tax bu mu jaral leen lu mel kon li fi fiy jànge mooy ab yéefar wala ko bokkul diine laa war sa digg moom mooy euh, maslaa ci kaw nit ak nit waaye bul ko jël ci anamu ni ngay jàppe sa mbokkum lislaam nga di nga jàppe wala ngay wane ne si diine diine ak si diine wala lan pas-pasam sa pas-pas ñoo yam mun talam boobu waree su ci jëflante koo xam ne euh, dafa demee noonu kon day mel ni ci wàll kooku loolu mooy li ñu mën a tiire jànge ko ci jëflante ñoom ñi nga xam ne bokkul ak ñun euh, diine kon daal euh, ci gàttal loolu mooy li nga xam ne moom la ñu jàppoon tënk si euh, wàll boobu xanaa di ñaan ko ci jàmm salaam te defe ko yi nga xam ne ñu la ko bëggee te lépp loo xam ne def nañ ko ci ci ay ñaan ak yooyu mel noonu yàlla nangul ñu ko te tas ñu ci barke mbokk yi kon lii la sëriñ Khalid Mbacké indi ci diggante borom Darou muuti ak ñi mu bokkalul diine te mooy nasaraan bi kon taxawoon na taxawaay bu mat sëkk waaye tubaab itam respecté woon nañu ko ndax soo demee ci fiche individuelle bi nga xamante ni 1912 bi mu sañcee Darou muuti lañu ko ubbi woon wutoon ay rek yoo xamante ni ay questionnaire la di laaj fu mu jiddo ñaataat la am xam-xamam fu mu tollu ndax ajna na màkk ndax dégg na arab ndax fotawuna dajale yoy yep ay talibem lan lañu mëna séntu ci mom lan lañu tit ci mom so démé ci souf euh bañu ko jébalé gouverneur euh parti observation ba dafa bind ci souf ni Ibra fatia était le seul lieutenant d'Ahmadou Bamba dans le Cayor tous les autres marabouts ne sont que des dérivés en quelque sorte ou agissent à leur propre compte buñ koy teung ci wolof dafa wax ni borom da lieutenant Cheikh Ahmadou Bamba ci Kayor mo jaaroon itam fa nga xamanteni bi fofu moy fi neex serigne bi so demé ci Paul Marty itam li bind muy le Mourides Ahmadou Bamba ba mu egsee ci mbacke Kayor fi borom daaru mu ci nekkoon mu wax ni Ibra fati wara tollu ci ñen fukki at ak juróom amna itam juróom-benni bant di fess del ak xam-xam di ko xamante ni bii moo teg tànkam foo ko Serigne Touba tegoon ba jàpp nañ ni bu fi Serigne bi jógee mooy ki koy war a euh, wuutu yooyu yëpp ay seede la yoo xamante ni bii nasaraan bi defoon nañu ko ci moom borom Daaru Muuti ndax taxawaay bu mat sëkk boo xamante ni bii euh, taxawoon na ko bi Serigne bi demee ci géej gi te mu des fi ak nasaraan bi ak euh, ceddo yi waaye itam ni mu demee ak ñi mu bokkaloon sëriñ bi te Serigne bi doon ci lim Serigne Issa Dieng soo gisee Serigne Mahmoud Mbegere ba mu sañcee fekk si na ko euh, sañc Mbegere ci ndigalul sëriñ bi sëriñ Adama Sall fekk si ko sañc ndangu ci euh, ndigalul sëriñ bi Cheikh Mamadou Lamine Gaye Firdawsi mu baax ma dem sañc fe nga xamante ni bii mooy Touba Gaye euh, kon loolu lépp ak sëriñ Massamba Diop Sam Daaru Diop gële ay relation la yu doxoon ci diggante borom Daarul Muuti ak ñi mu bokkaloon sëriñ tubaa kon jëmm ju sell jooju yàlla na nu ko sunu borom fayal bokk yu seetaan kon dañ leen di jox daje rek ci beneen waxtaan woo xamante ni bii jëm na ci màggalu Daaru Muxti ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm jërë ngeen jëf dama leen ci mën ah.